لم يكن يكن إبليس إبليس من الملائكة بوكج ملائكة طرفة عين القفق قطنك حسن البصرين إبليس مصد بوكج ملائكة وقال وانا شهر بن حوشب كان نكون من الجن ci jinne yi shahru nee na iblis ci jinne yi la bokk falamma afsadu bañ yàqee fil bansa ci la yónnee allahu yàlla ilayhim jëm si ñoom jundan ay soldaar minal malaayikati ci malaaka yi fa qataluhum ñu rey leen wa ajlawhum ñu dàq leen ila jazair bihaar ci jazira géej yi ba nga xamee ne yàq nañ ci kaw suuf di rey ci la malaaka yi ñëw rey leen dàq leen ñu làquti ci côté géej yi wa kaana nekkoon iblis iblis mi man usira di bokk ci ñi nga xam ne jàppoon nañ ko iblis dañ koo jàppoon ba malaaka yi ñëwee dañoo jàpp iblis waaye jinne la woon fa ñu jël ko maawum ànd ak ñoom ila samaay jëm ci asamaan ñu yóbbu ko ci asamaan fa la ci biir malaaka yi fa <coughs> bokkoon ci jaamukat yi yàlla yi gën a mag foofu ci malaaka yi <coughs> fa kaana mu nekk hunaaka foofu ci asamaan fa lama umirat bañ digalee al malaaykatu malaaka yi <coughs> ci sujjóot imtanaa bañ na iblis iblis minu ci sujur bi ndax moom jinne la du malaaka malaaka moom du moo yàlla wa qaaloon ibnu masud wa ibnu abbas wa jamaatu ak mbooloo min saxaabati si saxaaba yi wa saïd ibnu musayab wa axrun ak ñeneen ñooñu moom dañoo wax ne iblis malaaka la woon kaana nekkoon iblis iblis raisan malaayikati di njiitu malaayika yi bi samaay duniya ci asamaan àdduna si wax jooju sax mën naa tekki ne dafa jiitoon malaaka yi te bokkut si ñoom <coughs> mën naa nam mën naa am it ci nam mooy ci malaaka yi la bokkoon lu mën a xew daal nañ moo jiitoon malaaka yi asamaan àdduna si qaala wax na ibnu abbas ne ka wa kaana nekkoon ismu turam azazil ci làkku saryaaniya mooy azazil mooy firi aji fàggu fi riwaayatin ci nettali anu jëlee si ibnu abbas neen alxaaris la tuddoon mooy aji fàggu ndax ku mënoon a jaamu yàlla la alxaaris ak azazil ñu bokk firi moo tax nettali nañ jëlee ci ibnu abbas ne azazil la tuddoon beneen nettali mu ne xaaris la tuddoon qaala woon an naqaash naqaash nee na wa kunnitu dàkkantaram mooy abu kurdus iblis dañ ko doon dàkkantale abu kurdus qaala ibnu abbas ibnu abbas nee na wa kaana nekkoon moom iblis min xayin di bokk ci ab gàdd maanaam ab mbooloo min al malaayikati ci malaaka yi yuqaal ñuy wax loom ñeen leen alxinnu ibnu abbas nee na iblis mu ngi bokkoon ci malaaka loon ñu doon wax alxinn nag mun na mucc ne ba ko yàlla yéegee ci asamaan ci biir malaaka yooyu la nekkoon amaan yi mën a mucc ne malaaka la woon waaye daal siiw mooy jinne la woon malaaka yooyu yuqaalu loom dañ leen wax alxinn ci biir malaaka yooyu la iblis nekkoon wa kaanoo nekkoon nañ xuzaaral jinaan yi di wëttu aljana yi ñoom malaaka yi ñu doon wëttu aljana wa kaanoo nekkoon na min ashrafim di bokk ci ñi gën a tedd ci ñoom wa aksarim ak ñi ci ëpp ilman ci xam-xam wa yàlla iblis bokkoon na ci malaaka yi gën a tedd yi ëpp yi dàq jaamu yàlla bile moom ci saaram du malaaka wa kaanoo bokk ci borom mbagg yi àllarba ñeent yàlla daf ko defaloon ñeenti mbagg fa masaxawu mu daal di ko soppi àllaahu yàlla seytaanan muy seytaana rajiman buñ dàq mu mujj yore melokaan bu ñaaw waaye ku rafet la amoon ñeenti mbagg <coughs> meloon ni malaaka yi <coughs> mën am nag ci nettali yi dañ cee nam mu ne malaaka la woon mën naa am it lañ ci nam mooy bu ko yàlla yéegee daf ko ñeenti mbagg mu mel ni malaaka yi di jaamu yàlla waaye yàlla may ko garaat mu ëppoon leen xam-xam wa qaala fi surati Eh, yàlla wax na ne isqaala ba mu waxee rabbuka sa borom lil malaayikati ñeel malaaka yi ne nii nag man xaaliqun aji bind laa basharan min def min tiinin bu jógee ci ban fa idaa sawaytu nem xemal naa ko bind ko wa nafaxtu ma wal fii ci moom min ruuxi sama ruuxu fa qoona leen rot saaji leen di way sujjóot lahu ñeel ko sajada mu sujud al malaayikatu malaayika yi kulluhum ñoom ñëpp añ moonu mboolem seen illa iblis lu may iblis istakbara réerlu na kaana mu mujj nekk mel kaafirin ci xéewéer yi qaala wax na yow iblis ma manaaka ana lu la tere an tasjuda nga sujud li ma xalaqtu la ma bind bee diyee sama ñaari loxo astakbarta ma ndax da nga réylu am kunta wala da nekk min aalina ci way kawe yi boo waroo def lii qaala mu ne ana man xayru maa gën mu ci moom xalaqtani bind nga ma min naarin ما خلقته بنغه من تين تبان قال من فخر الجنة منها تي الجنة فإنك نكو رجيم كن دخنغا وإن عليك نكو ورنا اللعنة اسم رب إلى يوم الدين بكر بس بنت قال إبليس نبي صبر فأنظرني من الماء إلى يوم يبعثون بكر بس بنت ندكل قال برنكو فإنك نكو من المنظرين يعني بوكسين ياخي إلى يوم الوقت المعروم بكرك بس بن قم قال إبليس نفو بعزتك ما إن جنت ترانغا لأغوينهم دنا ما بيولولين أجمعين بولم سين إلا عبادك المويس جامي المخلصين إذا ويسلم منهم شنيوم قال بورني فالحق من ما يدق ولا فالحق دق شي من رلو جوجي بوكو نسبي موي فالحق دنا ما دقل بدقل وأقول لنا الحق دق <coughs> ما يدق تدق لا يوخ laam la ànd dana feesal jahannama jahannama min ka ci yow moom ma ni tabaaka ak ñara topp minum ci jaam jaam yooyu aj may na mboolem seen yow ak ñara topp yéenay dugg jahannam wa qaal wana fi suurti Araaf wax na moom yàlla na fi ma axwaytani iblis na fi ma sababu réeral gi ma réer yow yàlla laaqu dana danaa toog danaa gàllankoor lahum ñaan leen siraataka si yoon wal mustaqim wu jub bi fexe ba duñ fa mën a jaar <laughs> fexe ba gëm loo ay caaxaan fexe ba am ay mbootaay ki kuréel moo tax mbootaayu yi ngeen gis ci àddina yëpp ñu yàq lislaam ci pexem iblis rek lañ ko doonee ndeysaan xataa yahud yi gën a bon héber yi gën a bon dañoo xamul rek waaye ci lu leen yàqal guddeeg bëccëg ci lañ nekk ndax iblis moo fexe bëggam loo leen loolu fexe bu bëgg a fayu génne leen ci teraanga nga leen yàlla defaloon defal ko seen maam aadama moo tax mu ngemb leen di leen liggéeyloo ci lu leen lor ak lu leen yàq moo tax tubaab amul xel <coughs> jëm na ma si xeetab tubaab waaye tubaab bu nekk xeeweer laa ci nam maanaam bi yàlla amul xel boo amul xel du topp ku koy lor bàyyi lu koy jariñ képp kuy gàllankoor lislaam rek amoo xel moo tax yowmal xiyaama dañ naan law kunna nasmau aw naaqilu maa kunna fi ashaabi sair walaay suñ doon dégg-dégg kuy xelu kuroon duñ dugg safara waaye amuñu woon xel képp kuy liggéeyal iblis amul xel ndax dafa dem ci noonam boo xam ne yàqal ko moo ko tax a jug di ko liggéeyal bàyyi soppeem boo xam ne daf ko yërëm lool inna allaha binnaasi la raufur rahim yàlla ko yërëm nit ñi la su ma laat seenum topp dinaa leen dikkal min bayni seen karam iblis ay wax wa min xalfihim ak seen gannaaw waan aymaanihim ak seen ndeyjoor waan shamaa'ilihim ak seen càmmooy wala tajidu doo fekk ak sawum ñu ëpp ci jaami shaakirina ñu way sant yàlla <clears throat> ñu ëpp duñ la sant iblis ba ko yàlla defee seytaane ndax bañ gi bañ a sujootal aadama te fekk min def bu rafet la woon amoon ñeenti mbagg bokkoon ci ñu ëpp xam-xam ci malaaka yi ak ñu ci dàq jaamu yàlla <clears throat> bokkoon ci ñu doon garde aljanam nekkoon ci malaaka yi doon wax xind gannaaw ba nga xamee ne suuf lañ ko jëlee yéegi ko ci asamaan iblis bañ a sujjóotal yàlla def ko seytaane mu dal di critique yàlla di wax ak yàlla wax yi ñàkk teggin yi naan ko ay lu mas namu bi sababi irwaayika si sababu beewloo gi nga beewloo iyaaya man mi laa quudana danaa gàllankoor loo xam ñeen leen kulla marsadin ci bépp fugluwaay bépp yoon rek danaa fa taxaw pour gàllankoor leen ba duñ mën a sa pays wala ati noonu danaa leen dikkee min kulli jihatin ci bépp wàll minum ci ñoom wàll gu ne danaa leen fa dikkee jax jaxal leen waaye wallaahi surtoon iblis mi ak ay pexem nit ñëpp ñu wéetal yàlla xam ne yàlla rek mooy kenn moom rek mooy ki am am ak dëgg moom rek mooy ki jara jaamu moom rek mooy ki jara foglu moom rek mooy ki jara yëngatu moom rek mooy ki jara dal buñ demee nag <clears throat> ba tàqalikoo tàqalikoo gi xalaat bu ne ñëw te lépp ci xiyaas la tegu li Iblis waxoon rek pexem rek moo feeñ fa saa du ko texe rek man xaaral foofu mooy ku wuteeg Iblis wa shaqiyu ki texe xaar yi nar a dugg safara man tabaxu mooy ku topp Iblis. kama qaala imaam Ahmad comme ni ko imaam Ahmad waxee ne xaddasanaa waxtaan nañu Hachim bun Qasim xaddasanaa waxtaan nañu Abu Aqil wa Abdullahi bun Aqil Asaqafi mooy Abdullahi doomu Aqil Asaqafi mu ne xaddasanaa waxtaan nañu Moussa ibnu Musayyab an Saalim bun Abi Jaad jëree Saalim bun Abu Jaad an sabrata bun abil faakih jëlee sabrata doomu abul faakih qaala mu ne samitu dégg naa rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi mu ne inna cheytaana naka cheytaane qaada toog na li ibnu aadama ñeel doomu aadama bi atruqi ci ay yoonam waxut benn yoon de xam nga dafa am ñuy jël wax yàlla jum naan qul haadihi sabiili lii mooy sama yoon ak walaa tattabi'u subula bu leen topp yoon yi <coughs> ñu ne tarixa yoon fii yàlla ay yoon la fa iblis dafay toog ci yoon yi nga xam ne ni ñooy yoonu baax yi doomu aadama yi war a jaar loolu yi ñëw na si yeneen xadis yoo xam ne yontu dafa rëdd ay yii mooy yoon yu baax yi foofu rëdd benn rëdd ay rëdd la rëdd ne yii yoon yu baax yi rëddaat ak yeneen rëdd ne yii mooy yoon yu bon yi kon bu yàlla tuddee subul ay yoon ne bu leen ko topp <coughs> mooy yoon yu bon yi iblis rëdd amaa yoon yu baax yi nga xam ne nii yëpp ci xag péeb yàlla a jëm mazahib yi ci la bokk yi nga xam ni ci ndigal lu wér la sosu ci la bokk yooyu yoon la yu baax yu jëmee ci yeen la seytaanu dafay gàllankoor jaam bi ci yoon yooyu yëpp <coughs> ne bu mu fa jaar xuuti ñu koy dimbale ci nit ñi ak ci jinne yi wazakaral xadis mu tudd xadis bi kama qaddam naa comme ni ñu ko jiitalee fi sifati iblis ci melo iblis dañuy jàng melo iblis andi woon nañu xadis bi waqad ixtalafa wuute naan mufassirun taarifkat yi fi malaayikati maamurina ci malaaka yi digal bi sujjóot yi pour ñu sujjóotal li aadama ñeel aadama ahum ndax ñoom jëmewul malaayikati mboolem malaaka yi mboolem malaaka yi la kama dalla kon tegtale alay ci moom mun ayaati aaya yu matale yi watalool qawlu jumhur mooy waxu mboolem borom xam-xam yi firkati alxuraan yi wuute nañ ci yan malaaka la yàlla wax ne nañ sujjóotal aadama ñu ne malaaka yëpp la te loolu la ay di tegtal te ñu ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañuy wax mooy malaaka yëpp yi nekk ci asamaan ak suuf yëpp ay lu muraad wala luñ namu biim ci ñoom malaakatu addi mooy malaaka yi nekk ci suuf ñi ne déedéet malaaka yi nekk suuf la ci yàlla namu kama rawaahu comme nu mu ko nettalee jarir min tariq daxaak jëree ko ci yoonu daxaak an ibnu mu jëree ko ci ibnu abbas waaye fii nekk na ci xadis boobu inqitaan ak dagg bi nañ ko màngee am na nakaaratun ak fakk maanaam lu lu lu lu lënt lëndëm lu kenn xamut wayn kaan dina nekk na baadul mutaaxirina ñenn ci way mujj yi xat rajaxu di lëngal wax jooju ñenn ci way mujj yi nee nañ malaaka yi yàlla waxoon ñu féetal aadama mooy malaaka yi nekk ci suuf waaye daal riwaay yi ci am dafa doy na waar gën a lëng mooy malaaka yépp la wax ñu féetal aadama moo tax mooy al azhar waaye li gën a feeñ mën a siyaqaati ci màngi ni wax yi al awal mooy wax ci njëkk ja mooy malaaka yëpp la yàlla wax ñu ci yóotal aadama waaye dana tegtal ali ci xadis bu yàlla wax ne waas dara mu su yóotalal loxo ñeel ko malaayikatu ay malaakaam yàlla sant ay malaakaam ñu si ko moom aadama hmm, loolu la xadis bi wax malaayikatuhu kon loolu waxaasa li moom mun lu matal ay dem di wane ne malaaka yëpp ko su yóotal a wax yàlla ñu wax li iblis ñeen iblis faxbir wàccal min ha ci waxruj génnal minaa ci xadara yàlla bi dalilun tegtal laa la àndoon ne moom kaana nekkoon na fi samaay ci asamaan wax ji yàlla wax iblis na ko wàccal dafay wane ne iblis ci asamaan la nekkoon foo mee ñu digal ko bil xubuuti ci wàcc minaa ci asamaan ci aljana wal xuruj ak génn minal manzilati ci daraje jëm nekkoon wal makaanati ak kawe allati gi nga xam ne kaana nekkoon na xad naa laa di ko am di ibaadati ci jaamu yàlla bara bu kawe bu amoon ngir jaamu yàlla yi kawe yi mu doon def ci la ko yàlla sant mu génn fa wa tashabuhi ak nirulu gi mu nirulu bi malaayikati ci malaayika fi taati ci topp yàlla wala ibadat ak jaamu yàlla e, kawe gi mu ci amoon moom la ko yàlla wax na ko génnal foofu su ma sulu ba ñu rekkil ko zaalika loolu lépp mooy nirulu gi mu doon nirulu malaayika yi ak ñoom doon jaamu yàlla ak daraja ja rekk nañ ko bi kibri ci réyam gi mu rëy wa xasadi ak añaanam gi añaan moo tax ñu ne añaan dafay lekk jëf yu baax yi gis ngeen ni lekkee jëfi iblis yi te jaamu na yàlla bokk ci malaaka yi ëpp xam-xam yi dàq jaamu yàlla bokk ci mm, ñu doon garde aljana waaye loolu lépp teewul rek ba mu añaanee xalifa bi yàlla rek dafa xal ko xalifa yàlla ngoogu ku ko noonoo rek di noonu bi yàlla mu mu xaalifati ak wutim gi mu wutim la rabbi ñal borom moo iblis yàlla xalak ko foofu bi dañu wàccee ko ila ada jëm ci suuf masuuman di kuñ aybal madxuuran di kuñ dàq ci péeb ba kon yow doomu aadama bi xam-xam bu bëri bum yaakaar bum tax nga yaakaar ne mucc nga ndax iblis demoon na ba ëpp xam-xam yenn maraaka yi bokkoon ci maraaka yi ëpp xam-xam jaamu yàlla gu bëri bum tax nga yaakaar ne mucc nga ndax iblis boole woon na xam-xam ak jaamu yàlla ba malaaka yi nga xam ne jaamu yàlla rek tax yàlla bind leen moom muy jinne demoon na ko bokk ci malaaka yi dàq jaamu yàlla waaye teewut rek rëy xalag na ko añaan xalag na ko kon bul rëy bul wet bul yi may yi leen may boo ko defee rek teg ko sa bànneexu bakkan yàlla xalag la wa amara digal na laaw yàlla adama adama alayhi salaam an yaskuna mu dëkk ko moom wa zawjatoo ak soxnaam aljana te aljana yàlla digal na aadama ne ko yàgg sa soxna dëkk leen aljana fa qaal mu ne ko qulnaa wax nañ yaa aadama yow aadama uskun dëkkal ante wa zawjuka ak sa soxna aljana te aljana wa kulaa lekk leen minaa ci aljana ragadan rek gaa ji yaatu xaju shiituma fu leen neex wala taqraba bu leen jege xaju shajarata bi la garab fa takuuna kon ngeen mujj min adaalimina di bokk si tooñkat yi kooku baqara la ñëw kon gannaaw ba yàlla ابليس تفصمت ادم ومدك الجنه وقال في الاعراف وحنا تعرفنا قال واحنا اخرج جنا من هاتش الجنه مظلوما ديكون ايبل مدحورا ديكون دق لمن اتبعك كرتوب من يوم لأملا أن لنا فاصل جهنم جهنم منكم تيان أجمعين بولم سن يوم يرى طبوين موم جهنم يلن يلن مصل شكور الغوغو ويا آدم يو آدم يلن يو آدم اسكن دكل انت وزوجك تصحنا الجنة الجنة فكلا لكلين من حيث شئتما وفد النخ ولا تقربا ويبرن جاك هذه الشجرة بلا قرب فتكونا كن مج من الظالمين دي بوكشتون كريم وقال تعالى يلم كيم وحنا ليه إذ قلنا بني وخيل الملائكة يا الملائكة اسجدوا سجوتا لن لآدم يا آدم فسجدوني سجود إلا إبليس لما إبليس أبا بنا فقلنا يا آدم يا آدم inna hada naka kii yaaduwun noonu la la kañeel la wali zawjika ak sa soxna falaa yuxrijannakuma ngel la bum leen génne min al jannati ci aljana fa tashqa kon nga texaade yow aadama malaaka yi yàlla daf leen wax su yóotaleen aadama ñëpp su yóot ba mu des iblis yàlla xam ne iblis noonu aadama la waaye mu xamal ku ne ko sa noon la kon noon ah boo gisee ni tam noonam mu wóor ne noonam la fexeel la koy def pour yàqal ko soko xamalé ne diw sa non la loolu yàlla ko njëkk def mo tax yàlla xamal na aadama ne ko iblis sa non la fexeel ba pexe muy fexe mooy génne la aljana sonal la fexeel ba loolu bu mu sotti kon yàlla wan na doomu aadama yi ne leen iblis seen non la fexe leen ba bu mu leen yàqal mooy noon bi gën a mag moo tax moom la yàlla wane jële nag ay soldaram yëpp it ay noonu yi doomu aadama yi lañ mboolem kuy noonu ku baax rek dafa fekk dafa bokk ci soldaar iblis yi kon noonee rek iblis ci la am ab cër rek moo tax mu noonu ku baax waaye ku amul dara ci iblis ci ab cër du noonu mukk ku baax kon kenn ku nekk na fexe ba noon yi buñ la mën a yàqal buur na ko indi la kan naka ñaan la laal la te jox doo xiif yaa ci aljana mooy sa biir du torox wala taxaraa doo rafle mooy sa yaram bi ci bitti du torox ci ñàkk yére waa naka naka yow laa tas moo doo mar fiha ci aljana mooy tàngoor ak biir du la jàpp mooy tàngoor ak mar wala tadaha doo ceeneeru maanaam tàngoor ak jant bi mooy tàngoor ak bitti du laal wa siyaaqu haadi ayati ni yàlla maa ngi aay yi yaqtari day waral ana xalqa xawaa ne bind gi yàlla bind xawaa qabla duxuli aadam njëkk dugg ak aadam aljanata ni yàlla waxee dafay mel ni <clears throat> balaa aadama di dugg aljana ci la bind xawaa ndax dafa alak iblis ba de ne ko aadama demal na nga dëkk aljana yow ak sa soxna kon bin na xawaa njëkk aadama di dugg aljana yi xaw lii ngir wax yàlla jum ne waqul naa ñu ne ya aadama yow aadama uskun dëkkal ante wa zawjuka ak sa soxna aljana te aljana ni yàlla waxee dafay mel ni dafa bind xawaa ba pare door leen sant ñoom ñaar ñu dëkk aljana wa hada wax ji qad saraxa leeral na bii ci moom ibnu isxaq bun yasaar Iblis Saq moom nee na loolu mooy dëgg mooy yàlla bind na Adama ak bind Xawaa ba pare door leen dugal aljana <coughs> woowu loolu zaahiru haadil moom feeñ ci yile aaya waaye nag am nañu si wutee <coughs> moo tax mu ne walaakin waaye nag xakkaan rek na suddi an abi saalix jëlee ci abu saalix wa abu malik an ibnu abbas jëlee ci ibnu abbas waan murrat jëlee ci murra an ibnu masud jëlee ci ibnu masud waan naasin ak cay min asaxaabati saxaaba yi انهم نيوم قالوا واخنا ان اخرج جينا ان ابليس ابليس من الجنة تجي الجنة ومسكن يدكلو ادم ادم الجنة الجنة فكان يكون يمشي يدخ فيها تجي الجنة وحشا دي اجي ويت ليس نكون له ديكو نيال فيها تجي الجنة زوج سخنا يسكن دنا دال الى هاجم تيموم فنام من رو نومة اك نرو فاستيقظ المدالية <coughs> وين در اسيتا نكنا تشبهم بامرات اك جيجن qaaxidatun bi aji toog xalaqa bind ko allahu yàlla min dinayi ci faaram fa saala mu laaj ko man anti yaay kan qaalat mu ne ko imraatun jigéen la qaala mu ne ko wala ma xuliqti lu tax ñu bind la qaala mu ne ko li taskuna pour nga dal ilayya jëm ci man fa qaalat mu daal di wax la wañeen ko almalaykatu malaayka yi <coughs> yanzuroon ñu ngi xool ma balaxa la jot la jot na ko moom aadama meen mi ci xam-xamam maanaam fu xam-xamam toll lañuy xool ñoom malaayka yi moo ta ñu laaj ko ne ko maay suma num قال منك حواء لتد قال منك ولما كان لتهم لك حواء قال آدم لأن نحن خلقت بنك من شيء تمر حي باجي دند الله أكبر مؤمنة لنا بيالا جنة إبليس الجنة دكلو في آدم آدم دفن قال جنة دي دخو ويت لول أمو سخنا سوخن دي نكو ويت تريمو من چدل مجي نراو أم نراو يو فكو چي بفهم رك jigéen ju gën a rafet ci àddina mu ngi toog yàlla bindee ko ci faaru càmmooyam Adam laaj ko yaay kan <laughs> mu ne ko man jigéen la mu ne ko lu tax ñu bind la mu ne ko pour nga dal jëm ci man bu defee malaaka nag xam nañ ni Adama yàlla xamal na ko tur yëpp ñu bëgg a xam fu xam-xamu Adama toll ñu ne ko Adama kii nu mu tudd mu ne Hawa ñu ne ko lu tax mu tudd Hawa mu ne ndax yàlla daf koo bind ci mbir muy dund <coughs> fii <coughs> da ci déggee. li nga xam ne suuf yaa ngi koy koy wax ne aji mat ci jamono yàlla daf koy xamal lépp mais teewut nag léegi-léegi mu réer réerlu te fekk la muy réer réerlu moo ko gën a xam <clears throat> waaye comme ko dafa wàcc ci melo doomu aadama foo mu meloo ni doomu aadama yi di meloo ndax ñu mën koo jéem a roy <clears throat> moo tax léeg-léegi mu jéem a réer réerlu waaye léeg-léeg mu xamal nañu ne xam na dégg nga looloo war a yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi li muy wan nit ñi loo xam ne nii xaybu la te du wax sax ne ka baa ñëw wax ma ko dafa tëb rek ne leen nangam ak nangam wala nga bëgg a def dara ñëw mu ne la xam naa ko lii nga bëggoon a def bëri na lool si siira kenn du du jeex te teewul léeg-léegi mu réer réer lu dara ne xamut <coughs> mel ni loo xam ne ni xamu ko di laajte wallahi yonent bi yàlla xamal na ko lépp dàqal gi ko yàlla dàqal xaybu du caageen ne xëy bu aju ci wàllu mbindeef la waaye xëy bu aju ci wàllu zaat bi loolu kenn pegu ko foofu moom noo ci gën a doxee rek e, gën a e, am lu des nga xamut fu mu yem moo tax xëy bu ñaari xëy la xëy goo xam ne moo la faddu ak xëy bu goo xam ne yaa ko faddu xëy bu gi la faddu nag mooy li nga xamut ci wàllu mbindeef fi xëy bu nag nga xam ni yaa fàddu waaye moom demul fenn mooy jëm yàlla ji xëy bu googu pe pekku nekk <clears throat> waaye lu dul loolu yàlla xamal na ko ab yeneen toom jure nag léegi-léegi mu réer euh, réerlu hmm? ndax feeñoo tegginu ab jaam loolu la Adama def fi ndax Adama yàlla xamal na ko lépp leen lu nekk rek. daf koo gis rek xam nu mu tudd ak xam ay jëfam lu ko tax a jóg kon lan moo tax yàlla xamal ko loolu ba pare mu nekk ci aljana xeew gis xawaa di ko laaj naan ko yaay kan ak lu tax ñu bind la te pourtant yàlla xamal na ko mbindee fi ñooy ñan luñ tudd ak lu tax ñu bind leen ak seeni jëf ak lépp yàlla xamal na ko ko laaj gi mu ko laaj xawaa lu jëriñ te ànd ak ne ba nga xamee ne laaj na ko xawa malaaka yi di ko teste daf leen tontu na leen xawa la tudd ndax dañ ko bind ci luy dund <coughs> xam na ko waaye ba xawa ñëwee teewu daf koo laaj rek ne ko yaay kan ak lu tax ñu bind la te moom yàlla xamal na ko mbindeef bu nekk mooy kan ak lu tax ñu bind ko <coughs> kon loolu lu jara mm, bàyyi xel la léeg-léegi it jaaxalu na dañuy réer réerlu ci loo xam ne réeré wuñ ko <coughs> zakartu na Muhammad bun Ishaq an ibn Abbas jëlee ci ibn Abbas naa ne moom xuliqat bind nañ ko mu dilxi ci faaram al aqsar gàtt balay sar bi këjug càmmooy <coughs> woo moom naa mun aji neraw la wala ama mu feesal makaanu ca barabam laxman yàpp <coughs> nee na faarab aadama bu càmmooy ba ceeñ bind xawaa daal ci def yàpp ba mu fees ba euh, mu yeewoo daal di ko gis waxtaan woowu euh, ñu seq ko wa misdaaqu hada li dëggal lii fi qawli taala mu ci wax yàlla ji kawe jum naan <coughs> yaa ayyuhan naas <coughs> ay nit ñi taqu rabbakum ragal leen seen borom alladi borom bi nga xam ne xalaqakum bind na leen min nafsin waaxida ci benn bakkan wa xalaqa bind na minhaa si moom zawjaha jabaram وبس مجنن من ماش من نار رجال ايغور كثير يبري ونساء اكاي جيجن يبريت رغلن سن بروم بنين بنتي بن بكنت مودي ادم بنتي سخنام ген سي ايغور كي جيجن يبري صوت نساء الآية وفي قول تعالى وخي على جيكو جمنان هو الذي مميك خمني خلقكم بالنر من نفس واحدة تبن بكنت مودي ادم وجعل مدف منها جي ادم زوجها سخنام soxna si mu bindee ko ci aadama lees ko na pour mu dal ilayha jëm ci moom falamma taxashaha ba mu joteeg moom xamalat ëmb na xamlan ëmb xafifan bu oyof ndax ndoxam góor gi ba muy dugg ci jigéen ji dafay nekk lu oyof ci jigéen ji fa marat mu daal di romb bi ci ëmb googu maanaam ëmb gi di continuer ba mujj feeñ al aaya wasanata karamu danañ wax alayha ci aaya jooju fi ma baadu ci lu gannaaw ko incha allah na mu soom na yàlla lim bëgg a wax rek mooy laay yi yàlla war na ne fi ne xawaa ci aadama la jógee <clears throat> fi saxiixaan yi nekk ci xadis bu wér ci buxaari muslim min xadis zaida an maysarata al asjaaci jëlee ci xadisu zaida jëlee ci maysaratu al asjaaci an abi xaasim mu jëlee ci abu xaasim <clears throat> an abi xurayrata mu jëlee ci abu xurayrata an nabi mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu moom qaala wax ne istawsu na ngeen bi nisaa ci jigéen ñi xeyran lu baax ndax fa inal naka jigéen xuliqat bind nañ ko min dirin ci faar waaye na am waje shay naka li gën a jeng fi dilin ci faar alaaw mooy bu ci gën a kawe jigéen ci faar lañ ko bind faar la ci gën a jeng mooy la ci gën a kawe fa in zahabta nam tuqiimu pour jubbanti ko moom faar woowu kasartahu nga damm ko wa in taraktahu boo ko bàyyee lam yazal du dañ en di jeng kon jigéen it boo ko bëggee jubbanti bu jub kocc rek danga ko damm moy nga fase ko rek té boko ko boo ak mom, ya ngi ande ak mom waaye yaa ngi ànd ku jeng ku deung manam du deung gep deung waaye dal fo mom ay lo sax nit rek nit nit rek la nit mom fo mom am ay boo bëgg ànd ak dafa set doo gis ci mom lén lo lo lo xamné ne nan suñu ton li xamal ni do ànd ak kenn kon fas na ngeen dénkaane bi ni saay ci jigéen ñi xeeran ci lu baax waye jigéen ñi ci rawati comme <coughs> faar bu bëggee mu ànd ak yow nim la neexee rek mooy da nga ko fas soo ko téyee da nga ko téye waaye dana am loo ci muñaale loolu moom yàlla ko bindee jigéen kon na ngeen dénkaane ci jigéen ñi lu baax xam na yàlla daf leen bind naqisatul aqli wa diin ñu manqué xel ak diine waqad ixtalafa wutina al mufassirun taalif kati fi qawlihi taala ci wax yàlla ji ko nan wala taqraba bu leen jege aji shijrat bi rek garab wuti nañ ban garab la fa xile ñu ne hii moom al karmu mooy garabu karmu warwee nett nañu wax joojaan ibnu abbas téré ci ibnu abbas wa saïd bun jubayr ak saïd bun jubayr wa shaabi ak shaabi wa jahdatu bun hubayra ak muhammad bun qays ak surdi fi riwaayatin ci nettilaan ibnu abbas wa ibnu masud wa naasin ak ay nit min sahabati sahaba yi ñoom ñëpp ne nañ karmu la muy resin xaala wax na ne wa tasamu dégg nga <coughs> euh, euh, wa tasamu dana xootee nettali nañ ci ñii ñëpp ñu ne dañu woote yahud yahud am naa ne moo ximtatu mu di ximta muy bési ñu ne ximta la muy ci dañ moom la yàlla waxoon aadama ko yekk lu mën a xew daal <coughs> meññitu àddina bokkut ak meññitu àddina wa hada li mar nettal nañ ko ibnu abbas jëlee ci abbas wal xasan basari wa waxbubun munabbi wa atiya al awfi wa abi malik wa muxaaris wa muxaarib bun disaar wa abdurahman bun abi layla xaala wax bu wax bu ne wal xabatu pepp minu ci moom alyanu moo gën a nooy min azabadi ci bóor wa axla moo gën a neex min al asri ci lem wa qaala wana sawri an xusein an abi malik jëlee ci xusein mu jëlee ci abu malik ne wala taqarba bu leen jege xaaju shijara bi la garab ñu ne xiya garab googu an naxlatu moo di tàndarma garabu tàndarma kon wax nañ raisin la karmu wax nañ xinta la basi la wax nañ tàndarma la wa qaala ibnu jurej ibnu jurej wax naan mujahid jëlee ci mujahid ne xiya moom attéenatu mooy garabu gëng Jurayj ju ne gëm la ba bii te ci wax jooju xaaral la wax qataadatu ibnu ju qataada ibnu Jurayj ñoom loolu la wax ne na garabu gën la wa qaala wax na al abu aliya ne kaanat nekkoon na shiyaratan di garab goo xam ne man akala ku lekk minaa ci moom ahdasa toj la na wala yan bëri te du yàlla fil jannati ci aljana ahdasun toj la garab la goo xam ne ku ko lekk dafay toj la te aljana toj yellut fa <coughs> moo tax yàlla na bu dañ ci lekk boo fa lekkee da nga génn. kon garab gi nee nañ karmu la resin nee nañ ximta la ba ci nee nañ nax la la tàndarma nee nañ tiinatu gën la waadal xilaafu wutee qaribun lu jege la waqad abhama lëndamal na allahu yàlla zikraha tudd garab googu wa taayina ak ràññale garab googu walaw kaana bu nekkoon fi zikriha ci tudd ko maslahatun maslaha goo xam ne taawdu dana dellu ilay naa jëm si ñun la ayyanaha ko doon mu ràññale ko danaa ñeen su fekkoon wax ñu garab googu ban façon garab la am na njëriñ kon kon yàlla dana ko wax kama fi xëyriha comme ci lu dul loolu meneen maxaari ci ay barab ëllëg ci nga xam ne tubhamu danañ ko lëndamal fi alquran ci alquran lépp loo gis rek alquran leeralut ko <coughs> euh, loolu nanga xam ne leeral gi amalul ñu benn njëriñ kon bu ci yàq sa temps bu doon foofu mu leer rek yàlla danañu ko leeralal ndax du bàyyi lenn muy lëndam in uridu illa islam astata'tu ma tawfiqi illa billah عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته